assis nationale moo fi ñëw tey waaye dañu bëgg a wax ni mbokk yi faw rek ñu waxtaante waxtaan ci loo xam ne lu ñu jëriñ la wolof dafay wax na lu xew rek balaa xew bëgg a xew sëriñ bu wax na ko sànq muy aaya boo xam ne képp kenn suñu war na di ko teg ci kanamam inna allaha la yughayyiru bi qawmin ma yughayyiru hatta yughayyiru ma bi anfusihim lépp loo xam ne jàmm bi mënal na ko boppam na ko def na xam ne yàlla du ko ko defal asis nag bu yàgg lu jege at defoon na benn mémorandum boo xam ne dañ ko tënk jébbal ko le ministre du commerce waaye toog ak moom saral ko ko bu baax lañ ca tënkoon mooy am na jafe-jafe yu bari yoo xam ne tey commerçant yaa ngi koy jànkuwanteel bokkoon na ca li ñuy tuddee concurrence de déloyale maanaam commerçant yi seen nekkin ci seen biir commerce bi am na jafe-jafe te li ko indi léeg-léeg mooy ñàkk régulation ñàkk atte mandu bu am ci diggante ñi fi ñëw di ay gan joge bitim réew li ñuy defee dumping ci économie bi ñu ne ko loolu jafe-jafe la jot na ñu toog xoolaat càmbar mbir yi waaye ñu tegoon ci table amit li ñuy tuddee déguerpissement abusif léeg-léeg autorité bi jox di jiite ay commerçant yoo xam ne fa ñu nekk gaa mën naa bañ a doon yoon waaye dañ leen faa bàyyi ba jamono rek ñu xëy jëkkati leen te du ànd ak benn mesure d'accompagnement waaye ñu waxoon ko ne am na sécurité boo xam ne commerçant yaa ngi koy jànkuwanteel jàpp naa ne yàggul dara fii ci Touba amoon na agression bu fi amoon yaakaar naa en plein jour la amoon jot na autorité bi sécuriser ñi nga xam ne tey bu ñuy wax économie nationale ñoo ko yor waaye ñu tegoon ci taabalam it incendie yi nga xam ne lakk yi nga xam ne mi ngi am te ba léegi amul ci benn marché boo xam ne enquête génn na wala ne lii moo ko waral waaye. su lakkee ñaari fan ñetti fan ñu coow ko mu jeex du mujj fen fan yi ma déglu ci experts yi ñu wax ne chaque année ci Sénégal lu tolloo quinze incendies dana am ci marché yi boo ko doon xayma dana mat trois à quatre milliards ci ay valeurs yoo xam ne day yàqu commerçant yi doo ko yàqu loolu nag ak ay yeneen jafe-jafe yoo xam ne bari lool tàbb ci biir commerce bi waaye tey li na këtt na jonn mooy lakk yi mu jot nag ñu def ci nag ay assise loolu laa koy tuddee jot na sëkk ñu def assise ci lakk yi am ci marché yi waxuma la yàqu-yàqu bi waaye dégg na sama ay perte de vies humaines ay nit ñu ciy faatu yàgg ngeen ko dégg loolu moom yaakaar naa nit mënu ko réparer waaye alal ji nga xam ne moo ciy dem ndaw yi nga xam ne ñooy ci mujj nekk ci chômage mën a jur lu ne ndax mbëkk mi ngeen gis li ko waral mooy ñàkk emploi te lii su dakkul ñàkk emploi boobu la gën a bari su boobaatee téye xale yi dana jafe moo tax ma laaj ma jàpp ne laaj na assise responsabilité yi nag dafa partagé wu am na ci loo xam ne président Khady wax na ko léegi ñun ñii la ñun commerçant yi il faut ñu xoolante suñ biir waxante dëgg ku nekk jël sa responsabilité bañ a jiital say bëgg-bëgg rek say intérêt bopp wallis intérêt mbooloo mi moo tax dana laaj képp kenn si ñun nga joxoñ baaraam sa bopp njëkk nga koy joxoñ kenn li nga xam ne wér na lii ci yow la nga jéem a saafara loolu pàcc ba ca gën a mag nag état la ak démembrement état yi nga xam ne ñoo nekk ci collectivité locale yi war a saytu marché yi waaye marché yi dafay ruusee mu bari mu néew di dugg ci ñoom ñoom it ñu am redevabilité boo xam ne war nañ ko delloo ci marché ci noonu lañu ministre du commerce woowee wax nañu ne seen doléance dégg naa ko état dégagé na valeur à enveloppe bu 69 milliards pour moderniser marché yi ñu bëggoon bokk waxtaanee ko ak yéen ndax lañ leen waxoon mooy li sëriñ wax bu leen tëju seen bureau rek entre quatre murs xalaatal aw askan lëmm xëy rek na leen lii lañ bëgg a def te woowu leen leen ndax nag wala dafa yox loo xam-xam dem ba ma dem ba gën laa xam dem loo ma xam-xam ma gën a ma gën laa xam sama bopp xaj na commencé nañ ko ñuy gestion participative inclusive mooy lépp luñ bëgg a defati ci commerce bi bokk na ci li ñu leen bindoon ci référendum mémorandum bi nañ ci boole commerçant yi ndax tubaab dafay wax ne si tu fais quelque chose pour moi tu le fais sans moi euh, tu le fais euh, sans moi tu sooy def mbir pour man te ba nga koy def boole woo ci mel ni na yaa ngi koy def wallis ma mais dina dégg nañ loolu bokk na ci lañ njëkk a wax mooy bu dee dañoo war a tabax marché bi dafa mel noo xam ne dañ ko war a raser tabax ko nañ njëkkee ci commerçant yi ba xam ndax ñoom mën nañ ko war a déet su ko defee état day ñëw rek encadre leen te cadre boo xam ne ñoom danañ ko mën a def su loolu mënta am bu dee ñeneen a ko war a def it nañ ànd ak ñoom ci conception ba ba ci réalisation ba ba keroog ñu koy joxe ndax li expérience moyen mooy centre commerciaux yi bari nañ ci dëkk bi ci réew mi waaye boo demee fu mel ni Dakar yay dox tey de yi yi commerçant yi tabax la mooy dox waaye yi nga xam ne état ko defar yëpp tey pour poussière moo fa nekk lu ko waral mooy na war a tëddee ci commerce tëddee wuni ndax ñe ko waroon a séq te mooy commerçant yi boole wuñu leen coowoon loolu it mel ni na dégg nañ ko kon loolu lañuy ñuy wax it autorités yi nekk fii li ñu gis nag ci marché bi mooy jot na sëkk ñu taxaw xoolaat weneen doxalin man jàpp naa ne lii mënta continuer muy ambulant muy borom taabu muy borom cantine muy ku yor centre commercial bi muy ku yor magasin bi ñépp ci am responsabilité jot na sëkk ñu taxaw càmbar te nag bañ a raayalante ginnaaw ku nekk liñ ci moom nañ la ko jox ngir intérêt ñépp ngir intérêt ñépp loolu dafay laaj waxtaan wu yaatu boo xam ne ab commission lay doon ñi ci war a bokk yëpp bokk ci jiite dëkk bi autorité municipale yi commerçant yi ci ak fànn buñ mën a bokk ñu toog autour d'une table jaam càmbar mbir yi ku ci nekk li sa wàll ñu jox la ko ñu xool li nga xam ne buñ ko tegee waxuma à cent pour cent garantie dana am waaye à quatre-vingt plus de quatre-vingt-dix pour cent ñu mën a mucc mucc ci yi waaye bu demee bay amit fekk condition yoo xam ne teg nañ ko yoo xam ne minimiser ko dana yomb loolu moom jàpp naa ne buñ ko jàngee ci lii xew rek euh, jàpp naa ne bàyyi nañ lu am solo ACIS nag li ko taxa a jokk du lenn lu dul nekkinu commerçant seen nekkin ci métier mii ñu nekk gën a yëwén gën a baax gën a jëm kanam ñu taxawal loo xam ne du yem rek tey tey tey tey waaye dañu bëgg muy continuer ba ci suñuy sët ak suñuy sëtaat te bu ñu àndee mën naa nekk état li ñu koy laaj mooy cadre nañ defar cadre rek boo xam ne ñun danañ ci man a yëngatu wax naa ko kerek ci kanam ministre bi ma ne ko ñun commerçant yi li ñu soxla mooy ku ñu tegal cadre boo xam ne dinañ ci mën a yëngatu ndax. ki nga xam ne dafa nekk ab saalum saalum jógee saalum ñëw ndakaaru wala mu ñëw bawol lii wala mu nekk am njàmbur njàmbur wala ab kajoor kajoor ba muy wàcc fa muy wàcc capital am léegi-léeg du weesu cinquante mille mu ne cay wëlbati di wëlbati di wëlbati ba mënu am cantine mën a am magasin mën a dem sax ba am centre commercial mën a dem sax ba am usine ndax ACIS xam ngeen association des commerçants et industriels du Sénégal parmi nous am na ay industriels yoo xam ne ñu ngi ci suñu mbir te comme yow ak man la woon diir bu dañ doon ambulant ba xëy tey ñu tabax ab industrie ma ne ko kooku boo jàppee ne xamut li muy def wala li ngay nasa ko nocc doo ko ci boole wala nga jàpp ne dafa dof moom mi ngi wut garab yu mu la fañee kooku li mu soxla rek mooy cadre bu propice ak yëpp ak di diisoog moom pour que yëf jëm ci kanam su ko defee ñu ngi woo état ci cadre boobu kon nag loolu waaye nag yàlla moom lu mayul doomu aadama amul lu mayul in istatantum an tanfuzu min aqtaari samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzuna illaa bi sultaanin sultaan mooy réflexion ak xam-xam mooy yàlla nee na su ngeen neexee ngeen découvrir asamaan ak suuf lu mën a nekk la waaye nag lu ñuy discuter la ba waxtaane ko ak riverains yi ak maire bi ak nangam ngeen ñëw ak seen i proposition yaakaar naa loolu bu ngeen loolee Abdou Lahad Ka mi nii su ma ko woowoon mën naa am na ne awma seen jot waaye dafa bàyyi li muy def lépp 11h ba léegi mu ni ma xaar ndax 10h demi laa ko waxoon ma am ay kii kilifa yu ma waroon na àndal ñoom tamit mu 11h ba léegi mu ñëw toog fii kon man yaakaar naa am na ci yéene président de la république mi fi yebale tamit ndamam la suturaam la ah bëgg-bëggam la pour que marché Sénégal organisé. waaye am naa quatre-vingts milliards am naa cent milliards taxaw taxawul ñu tabax marché man ba ma dalee dégg ci Abdou Diouf ba léegi ñu ni ko wax tabaxul ko ñuy marché kon nag nañ seet fan la problème bi nekk waaw ah fii nag ñëw ci Aziz dama ci am mbégte lool ndax man dama leen naw bu baax te féete day euh, nu koy waxate ragal féete day bañ a day xañ a man dama féete ak yéen ngeen xam ma ngeen ñàkk nga xam parce que lu tax mooy saal bii bu ñu doon séddoo ñu fi ak mbokk kenn ak ma fi mbokk ci côté bépp nag ci côté mbokk daara ci côté mbokk deret ci côté mbokk euh, commerçant jeex na kon su ma gisee ñoo xam ne nii gis naa ne seen yëngu-yëngu mooy ñoom ñi ngi subir loolu mooy ay activité lañ yor mooy da nga yor euh, magasin da ngay importer te xam ne lii bu taxawee nga yëg ko nga da ciy sonn daf may wóotalee ki nga xamee day coow ci turu commerçant te boo ne ko ana sa magasin wala ana sa boutique la ko woon kon kooku lu metti metti damay fekk nga xam ne nii ma nga ci nekk nga xam ne nii bu mettee boo ko dompatee mu metti la muy wax mu mën ko déglu ak nu mën a mel kon nag man jàpp leen ne ànd naa ak yéen fu yéen ma woo ci waxtaan ci loo xam ne nii man na suqale liggéey bi ma def ko ndax su ma nee du ma defar luy defar commerce kon yéenewu ma samay doom euh, jàmm ndax su ma sañoon ay commerçant rek la doon te commerçant moom industriel bi sax commerçant la waaw ndax kenn ku ne war nga am fierté ne commerçant la ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba ko yàlla daataa la yónni commerce la ko def loo sàmm sax commerce la da ko commerce loo ba pare ci la jógee ba ah wax yu bi ñëw ah boole ko Khadija kon loolu man je suis fier de le dire que commerçant laa ndongol daara laa Touba laa dëkk laa juddoo Saloum Saloum laa dese sens mais Touba laa ma ko di ko su doon bëgg fu may bokk rek ci chambre de commerce chambre de commerce Dakar laay inscrire ba ñuy voté 2010 jàpp leen ne neuf sociétés yu voté am naa ko te Kaolack amoo fa société bu voté dañ maa fëkk. Alioune Diouf mii moo fëkk sama carte daal te wutal ma fa ma ci seen liste ah ba jot jotee ma dugg waaye man ba may jóg chambre de commerce Kaolack jógloowu ma ndax ba defar liste ba ba da ci kii sax taxawuma fa di ko wax dañoo dem ba mu sës ba seen biir ñu toog ba amuñu candidat xëccoo seen biir yàlla may leen ñu am xel ak xalaat ne lañ jëli sëriñ boobu loolu ma ci dugal waaye du combat bu su ngeen gisee ma porté combat chambre de commerce bi fii damaa gis ne tey yéen ñëpp xam ngeen ni Aziz lu mu rëy rëy Inaakoa lu mu rëy rëy bu taxawoon Dubaay ne Aziz la wala Inaakoa dañ naan ko lan la waaye bu taxawoon Dubaay ne chambre de commerce la wala délégation chambre de commerce roi roi ba sax mën na leen recevoir ndax yéen ñii dem Dubaay xam ngeen chambre de commerce Dubaay li mu doon traité ñii dem Italie Amérique France xam nañ chambre de commerce leen représenter waaye loolu état moo ko créé jox ko secteur privé yéen a ko mën a fay daal keneen mënu leen ko fay seen bopp su ngeen ko ñàkkalee fayda mu ñàkk fayda su ngeen ko faydaalee mu ñàkk mu am fayda état mi ngi fay daal gouvernement am mi ngi fay daal ay institution ñun suñ institution publique bi ñu ëmb nga xam ne nii teewul war nañ mën a nekk bokk ci ACIS bokk ci UNACOIS bokk lépp bokk ay gis-gis waaye am cadre boo xam ne buñ fa dajee waxtaanee fa loolu mooy chambre de commerce kon nag maa ci ñaax ngeen gëstu ko seen yëf la kenn moomu ko fi lañ koy fekk ba muy créé wu juddooguñ bu kaw lax 1911 la créé wu 11 waaw sëñ Tuubaa du 28 la jóge 27 Kaolack bu 11 1911 la créé wu bu seeni 1870 te fi lañ koy bàyyi yaakaar naa fii 1000 ans bu ñu fi yàlla bàyyee tamit fi lañ ko fi bàyyi du fi jóg ah kon danaa leen wax ne li ma bëgg wax lépp sax xam naa ne day am yeneen yoon ngeen woo ci li ngeen tudde seen bopp ay assise d'accord naa ay assises ñu defe ko fii mën naa leen ci jàppale ah ci local ci mag Abdoulaye te ñu toog ñu xalaat ndax commerce moom ku koy waxtaanee waxtaanee ko Touba da am ndam ndax tamit li li nekk commerçant ci Sénégal te am intérêt Touba wala ñoom ñu am ko ci intérêt bari na. te mooy deuxième économie moom ñii xam na ne tous les jours ci lañuy ñuy waxtaan dama ne ko benn jour ñu ànd maag moom du man ñeenti wax di wër fële ma ne ko ñaar est-ce que soo wutuwul cinquante wala cent conteneurs danañ jógee Dakar ñëw Touba par jour mu ñëwee ci conteneur wala mu ñëwee ci bagage et mën naa am ci camion bi muy dugg trois cent mille quatre cent mille lay fay mais ñëpp xam nañ ne buñ defaloon raay raay bi sax baax na

benn conteneur ndox transport bi mën naa ëpp ndox benn conteneur mat la transport bi mën naa ëpp mat la kon xalaat ngeen xalaat ci yéen li ngeen def union de commerçants et industriels nan ngeen mën a créer centre logistique man de bu ngeen ci amee ay waxtaan ak lu mën doon ak maire bi yaakaar naa lu mën a yombal ba nga xam ne nii dangeen ngeen mën a am marché de góor marché d'intérêt national fii Touba moo nekk ci digg Sénégal jóge fi dem Tamba jafewul autoroute bi parce que ilaa Touba la wala ilaa fépp la léegi man may dem la sax moom laay jël ba Bambey ma wàcc jël ñii dem Kaffrine fii la ñuy jël jaar bi ñii dem Fouta fii la ñuy jaar kon ngeen xalaat ci côté yooyu xëy na affaire marché bi la ma fay wax fële wax naa ko mën a jël ma di ci dellu si di leen wax ne d'accord naa toujours tamit gouvernement waaye li ma leen wax rek ina laa laa yoxee rement bi xam naa taa yoxee rement bi mën naa ko bañ tekk ndax ñu ci ëpp xam nit yi daal man bi ma njëkkee ak imagination ne centre commercial mën naa nekk étage mais dañ ne ma da nga ta a nekk mais deux mille quatre vingt dix huit laa dajale samay économie dañ jënd benn terrain ci biir Sandaga tabax ko centre commercial ba ma koy tabax jafe na waaye lu bon bon yéen yéen a fa teg seen bët la fa nekk di ay boutique ay nangam mën na trois cent la fa nekk di xëy di dugg di liggéey dafa nekk que mën na 1500 fii tamit bi ma gisee ñëw xool centre commercial yi li fi nekk kenn xamul na la toll te ay seen rek ko tabax yéen a ko moom kon nag man je pense que opérateur économique yi def nañ li ñu war a def ne leen état bi gën a jàppale ci encadrement ndax li ñuy wax baadoo la mënut a yar morom ma ci encadrement loolu rek leen soxla du xaalis ndax ñun ñoo war a jox état xaalis ñun ñoo war a fay. yaakaar naa kenn ku ne mënoo yor place boo xam ne nii la ca nekk place bi lépp motul 2 millions la ko tabaxee motul 2 millions nga te am fa 30 millions te sécurisation bi du sa préoccupation waaye mënoo ko ndax kay lal ca kaw courant ba koy defar wala lu mën dina nekkul ci sa autorité ci autorité état bi la nekk maire yi tamit comme niñ ko waxee seen responsable waaye maire démembrement de l' état yaakaar naa lu état bëgg bu ko exiger mais di jox ko mooy danañ ko def man xam naa yéen Abdou Lahad Ka ci Touba xam naa bu sañoon tey Touba mooy dàq Dakar te ñun ñëpp wala mooy dàq sax Paris mën nañ ko wax comme li Senghor doon wax l'an 2000 Dakar sera comme Paris <laughs> to waaye mel na ko ci ay oto de ak déedéet mel na ko de tubaab bi dàquñ ko dund ñoo leen dàq oto yu ñuy dawal ñoo leen dàq kër ñoo leen dàq lu ñuy leen organisation rek bi public la ñu dàq waaye kenn ku ne xam nga ne am nga sa yor ta waaye la ngay sol sa garde bu amu ko oto ba ngay dawal dawu ko boo tegee taabal amu ko kon organisation rek la ñuy ëpp te ah, li nga xam ne nii ah moom lañ war a taxaw mooy li ngeen wax rek lu ñoŋal seen commerce lu ko yokk te gis nga port sec bu fi taxawoon gis nga fi industrie day yomb parce que man su ma sañoon déplacer sama industrie buy def naa nga mu indi ko Touba wala ma yóbbu ko Kaolack mais su ma xoolee matière première bi may déplacer delloowaat ko dama naan non dafa cher mënu ma koo def Touba naa ko mënu ma koo def Touba naa ko def Dakar waaye bu fekkoon réglé nañ logistique bi logistique bi autoroute bi baax mais autoroute bi rapidité lay yokk mais du wàññi coût de transport raay rek moo ko mën a ràññi. te sëñ Mouhamadul Moustapha jox nañu exemple tabax jumaa ji moo tax raay bi ñëw fi tabax jumaa ji ah mooy dëkku bañ calculer coût bi nar tabax jumaa yi ci ay xeer ci ay nangam mënuñ ko teg ci oto ni mënuñ ko yenu tubaa bi étudier ko ne ko tabax raay moo ko mën a def dafa taxaw murid yi ñoo moom raay bi entre Diourbel ba Touba ñoo ko moom waaw mën nañu wax waa Sénégal ñoo ko moom privé la c'est-à-dire si SNC amee indépendance dañ ko nationalisé mais en réalité buñ ko toppoon boobu transport boobu c'est un transport privé pour les mourides kon daal maa ngi yemale samay kàddu foofu di leen wax ne man je suis vraiment motivé ànd ak yéen ci fu ngeen nekk ci Sénégal ndax ñii ma bokkal yépp ñoo bokk yépp pour que ngeen xeex nan ngeen mën a defaraate activité bi état bi jàppale leen état nag li muy man ndegam yàlla mooy wax ne inna laa naa yuxayyiru maa bi qawmin hattaa yuxayyiru maa bi anfusihim état loolu rek la a wax mën il faut que ñun ñu soppiku pour état man ñu dimbale man mën naa taxaw fii ne état bi li normal li normal waaye li ma gëm su ma nekkoon place Macky Sall tamit tamit décidé ne damay indi xaalis tey man damaa toog di xalaat su ma ne woon maa ngi tabaxaat fii ban xalaat laay utiliser teg naa programme yëpp gis ma yoon <laughs> moo ma jaaxal nag jërë ngeen jëf. kon dama bëgg ñu toog waxtaan waxante dëgg xool lan mooy solution ñu ànd ko def parce que ab ab du du du soldat ab maire dañ ne mooy ndeyu nit ñi ndey nag nampal nampal doomam la man ak jox ko mu lekk ak mu naan yërmande la doxe sëriñ bi yi dafa bëgg ku yërëm nit ñi ci yërmande la ñuy dox waaye nag bu fekkee ne problème am na ñun ñi ko seq nañ bokk toog waxtaan xool ba ne lii mooy solution bi ñu soumettre ko xalif sëriñ bi am ci ndigal dem ci état bi mu exécuter loolu kenn ku ci nekk nekk ci jàmm ndax bu dul loolu dañuy accuser maire bi maire bi maire bi waaw lii lakk centre commercial yi lakk ak lii li muy bari bari bari commune bi de moo koy bale bët bu yàlla sàkk trente personne laa fi teg teg ci biir marché bi douze personnes muy quarante deux ñu di ko bale bët bu yàlla sàkk di di maanaam di fay di fay ndox mi di def def éclairage public mais amul un franc nag boo xam ne day jóge fii di dem ci maire bi pourtant teewul waru gar la ci mën a ko def parce que population bi fi dajee te maire yi mooy moom la moo responsabilité war di toppatoo nit ñi centre centre commercial yi centre commercial yi amul loolu donc nag bu ñu toogee ñu neen bu ñu toogee ñu neen di waxtaan nañu nañu seet solution waaye nañu waxante la centre commercial nit moo moom këram moo moom këram tabax ko te du luyee ci biir waaw loolu buy wéyee ci biir maanaam bu weer dee mu fayub xaalisam kooku kenn mënu ci dara donc commerçant bi ci biir na nga xam ne dem ne bu weer bu weer dee amaane sax moom bu weer dee dana fay patantam kooku mi ngi dugal dara mais sant commerçant bi mënul dugal dugalul benn dërëm ci commune donc loolu nag il faut que ñu waxtaan seet dimbalante jàppalante xool nan lañ mën a def ba nit ñi ne ci jàmm ba alal ju toll ni ban yàqu parce que dafa Touba dafa perte temps dafa perte ci économique lu bare bare gis nga milliards yii fu perte maanaam fi jamono bi toll ak ni métti ak ni at mi demee ak ni mbëkk mi mel ñu perte lu toll nii loolu lu ni méttee amul ci àdduna te ñun waruñoo perte koo xam ne li nga am doy la donc danga war a fexe ba mu yokk waaye waroo fexe lu koy daaneel te lii dafay daane économique ci réew da koy daane ci ab dëkk da koy daane ci ab gox kon nag ñu ñëpp. di ñaan daal ñeeg ñëpp man daal ubbil naa leen samay bunt comme ne ko sëriñ waxe ñu bokk toog seet solution nan la ñuy def ba nit ñi mën a am jàmm fu mu yaakaar fu ngeen coupe rek fekk naa leen fa ci solution boo xam ne dana may nit ñi jàmm dana dolli développement dëkk bi di remercier bu baax a baax a baax nag sëriñ mi nga xam ne ñëw na ci ndax li mu wax nii bari ki dem def nañ quatre heures de temps moom ci dëkk bi di xool nan la ñuy def ci économie nan la ñuy def ba port sec bi nan la ñuy def ba commerçant yi développement euh, économie bi développé donc lu ko ñor la loolu moo tax boobu ba ndëgg ni ma ànd ak moom toog fii tey ñu délivrer message bi gën leen a tàllal loxo xamal leen ne réew mi moom yàlla dogalul mu amagul leneen lu ko mën a développé lu dul économique industrie agriculture ñett yi la Sénégal amagul ci lu ko mën a développé te loolu yépp chambre de commerce moo ko sapotee ko te ñooy membre de chambre de commerce ay membre lañ ci chambre de commerce ñoo war a téye chambre de commerce kon il faut que ñu jàpp ci chambre de commerce bi